على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جناو بنو سنتي الله جلي جسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñi ngi ñaan yalla sunu borom sunu sant yoy ak sunu julli yalla nañ ko yalla nangu damay faral di wax ni nag ku sant yalla ku nek war nga ñaan yalla mu nangul la cant boobu ku julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam war nga ñaan yalla mu nangul la julli boobu ndax ñaar yoyu yalla daf ko fonk ndax bi fi dara newul yàlla rek ne fi te moom dong moo fi desaat lépp dem bàyyi ko fi li mu njëkk a def mooy sant boppam xam ne li mu mën kenn mënu ko li mu sañ kenn sañu ko mu sant boppam cant googu tasaaroo ci doomu aadama yi am yu dellu ci moom am yu dellu ci diggante doomu aadama yi waaye yëpp boo ko boolee dafay delluwaat ci sunu borom kon ku sant yàlla ku ne war nga toog nga ñaan yàlla ni ko cant gi ma la cant yàlla na ma ko nangu ndax yàlla bu ko nangoo ba fay la ko danga ci dugg aljana mu des say mbokk dugg mu des xeet bi yëpp dugg mu des kon yàlla nañu yàlla nangul ci ñuy sant waaye julli yi ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa war nañ di ñaan yàlla yàlla diñ ko nangul ndax julli ci yonent bi ci dund doomu aadama farata la ci dundam benn yoon mu def ndax yàlla bi mu nee man ak malaayika yi maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg mooy ñëm gëm te gëm gi dëggu ci ñoom ñoom nañu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon mbooleem xeetu julli boo xam ne julli nañ ko ci yonent bi yàlla nañ ko yàlla nangu su ko yàlla nangoo bu ëllëgee yàlla boole ñoo ko yonent bi ñu bokk ci njabootam biir aljanna te yàlla nañ ko yàlla defal maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp di leen ziyaara waaye di leen jox seen wàccuwaay di leen bal àq waaye di leen baalu àq ci yu jot xew ak yi ñu xam yi ñu xamul di ñaan yàlla ngërëmal sunu borom yàlla na tàbbi ci bis bi ndax bés mu rëy mu tuuti la ca am solo mooy ngërëmal sunu borom tàbbi ci ndax nitu yàlla yëpp gannaaw ba ñu jaamoo yàlla lañuy ñuy sàkk mooy ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla nag am na ñuy dugg aljana waaye duñ ko am am na ñoo xam ne balaa ñuy dugg aljana yàlla dana leen gërëm décorer leen ñu dugg yàlla nañ ko yàlla defal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko saxaaba yi nangulee aaya dafa daanu yàlla gërëm képp koo xam ne gëm na yonent bi waaye yamu ci dafa jaayante ak moom kon ngërëm loolu yàlla na ko yàlla tabbal ci biir mbooloo mi ñi ngi nuyu Abdoulahi Diop di ko jox wàccuwaayam waaye di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko aar ko te yàlla barkel ko ndaw la waaw waaleykum salaam wa salaamaaleykum sang bi laay laay lay laay laay laay lay laay laay laay laay dëgg la allah dama lay kon xaaral waaw kon Abdoulaye ñu ngi koy nuyu bu baax waaye di ko jox wàccuwaayam déedéet bisimilah ci la bokk amul solo laay amul solo amul solo amul solo jërëjëf jërëjëf laay kon Abdoulahi ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal yàlla waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla sàmm ko ba pare di ko ndokkeel ci bés bi di ñaan yàlla bés bi yàlla na fi njariñ juddoo barke juddo fi sutura juddoo fi xéewal juddoo fi ñi ngi nuyu sang bi teew léegi muy euh, Ousseynou Serigne Ousseynou caw lay ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam bismillah waaye gannaaw ba ñu ñaanalee Ablaay ba pare ñi ngi nuyu sunu doom ji toog ak sunu sët bi muy Serigne Babacar Sall ñu gën ko miin ci maam Khalifa moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dëgëral ko te yàlla yàggal taxawaayam ak njaboot bi yëpp waaye di nuyu Cheikh Omar Ba Mbambilor mu ànd ak sunu mbokk Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niang di nuyu mbooleem seex yi nga xam ni ñi ngi ci jotaay bi ak boroom xam-xam yi ak waaye di nuyu tamit ñi nga xam ni ñoom ñooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jiital ci sunu mbokk sunu xarit muy Abdoul Aziz Ndiaye yaakaar naa ni moom lañ ko darajaale kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax moom li ñu boole dafa bari benn rek laa ci lim muy Serigne Sidi Ahmed si Jamil boole nañu ci anam yu baree bari kon Serigne Abdou ñu lay ñaanal bu baax yal na yàlla wéral baat bi ak sunu mbokk mii toog muy Serigne Ousmane Kane ñooñu buñ leen nuyoo. yaakaar naa ni ñëpp dugg nañ ndax buñ dee lim fii ba suba duñu fi jóge waaye di nuyu tamit sunu waajur yu jigéen yi toog sunu kanam di leen jox seen wàccuwaay di leen ziyaara di leen ndokkeel tamit ci bés bi ma lim Serigne Fallou Tine mii toog xëy na tey laa koy door a gis waaye dinaa koy gis ci écran bi lu bare bare bare bare mu doon nit koo xam ni ku am ay qualité la ci li muy def bëgg ko wóolu ko gëm ko ba pare xam loolu dañ la koy seddeel yal na yàlla barkeel ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag barab bi lu bu wax waaye barabu way la barabu way la maa ngi koy dee sama mbokk mii ma àndal muy Oustaz Habib Fall nga xam ni moom sama lépp la maa ngi naan ko fii tey nabiyee yi ñoo aay su ma ko waxee loolu li ma jàngat ci jotaay bi mooy wax waru fee bari waaye way moo fi war a bari Abdullahi nag dafa baax rek bëgg yaatal ma gis ko ni mu mel ci bis bi ak xër gim ci àndal du lu ma mën ñëw bi waaye ma def ko ngir coonoom ndax Abdul Aziz Mbaye dafa mës a nettali mu ne dafa mësa a ànd ak Sëriñ Abdul Aziz da baax yal na ko yàlla yërëm te wàcc te yàlla yokk leeram mu jënd ñu dox ba gis kuy jaay yoo xamante ni daanaka amul benn njariñ amul njariñ sëriñ Abdou ni ko Abdoul wàccal nga dem jëndal ma kële li muy jaay lépp nga jëndal ma ko indil ma Abdoul bi mu ko jëndee ba pare ni ko papa lii nga jënd lan moo tax mu ne ko jëndeewu ma njëg waaye coono laay jënd coono laay jënd kii xëy na li muy jaay tekkiwul dara waaye bu ma ko jëndee jox ko xaalis bi dana ko jël yóbbu ko këram mu ne ko jënduma njëg du ma ko waxaale waaye coono rek laay jënd waaye Abdullahi coono bi mu daj ci mbir mi ma it loolu moom moo ma yëkkati waaye ku ne xam na ni jot moment bi ñu toll xat na lool ca Tiwaawan ñi ngi dëgmal ziar général suba mi ngi ma war a fekk Mbuur ak yeneen i itte waaye ñu ñëw ngir yëg ndax sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu dafa am lu mu jàngale nee na nit bu la bëggee ba amoo loo ko fayee jox ko sa wan ne ko yëg naa la yàlla mi ñu sàkk bi mu bëggee ñu yëg ni mi ngi existe daf ñu sàkkal weeru koor weeru koor nit ñi sax ñooy wax ci seen xel ni weeru ko koor ku dul woon yàlla ku ko tegoon nit da ngeen xeex am ñu wax ni sax yàlla amul sañ-sañ teg ko ñaari def ko ñaari weer kon li mu namm ca loolu am na ko mooy ñu yëg ni yàlla existe na kon yëg-yëg boobu moo dox ci sama digganteeg moom moo waral ma jugee ko waawan ñëw ci bésam bi wéttali ko waaye suñu xel dal na ndax am nañ fi ay mbokk yuñ fi fekk yoo xam ni gën nañ ñu ñun bu ñu ñëwul woon sax ñoom mën nañ ñu utu fii benn ci sëriñ Babacar Sall mii toog benn ci sunu mag gii toog ñaar ci alxaaji Malick Mbóoj mii toog wala Seydina Omar niñ fi fekk wala Cheikh Tidiane Niang ñooñu ñëpp ñëpp ñëpp kenn ku ci nekk mën ngaa représenté famille yi nga xamante ni ñi ngi ci biir Sénégal uutu fi ñi nga xamante ni ñoo fi waroon a ñoo taxawee nii kon dañuy am mbégte bu baax a baax di sant yàlla ñaanaat yàlla mayaat ñu ñu fekkeewaat at yu baree baree bare bari bi jaayi seydil wujud sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu joxe benn ndénkaane bu gàtt rek Abdullahi dafa woote bés bi wooteelu ko war ngaa yëg ci sa yaram ni maa ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu def jeexital ci yow sëriñ waaw mu def jeexital ci yow ndax di tagg yonent bi mag ñi mag ñi yonent bi lañu xencu ba yonent bi wax leen mooy kan ñu bind ko ci téere ñun ñu koy jàng muy def leer ci suñu jëm am ñoo xam ne yàlla may na leen ñu mën a mokkal ba koy wax di ci bégal nit ñi bégal nit ñooñu nag seytaane da ciy roofu ñu bàyyi ko xel seytaane daf ciy roofu kuy woy yonent bi ku la xool na yëg ni yaa ngi woy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye kuy woy ku la xool mënul distinguer mënul tàqale ni kii yonent bi lay woy wala leneen lay woy dafay xaw a doy waar te yonent bi nag di ko woy di ko woy ba ñëpp booleel ni taggkatu yonent bi woowe la nabien loolu cër la cër la yombul kon ñi ko yàlla defal ñi ko yàlla defal nañu ko xam buñ ko xamee nañu ko wéyal ndax Abdoul Aziz Mbaye dégg naa ko mu wax ni Serigne Abdou daf ko wax ni ko yonent bi boo ko dee woy te mu dëggu ci yow foo toll mun nga ko gis foo toll mun nga ko gis Abdoulaye mës ngaa gis yonent bi gént daal gént di ko way naan kan a sayyidina rasulullahi kon moom nga moom nga gis rek ndax moom wax na ni kenn du ko gënt dañ koy gis waaw kon bu ñuy compter ñi nga xam ni gis nañu yonent bi bariwul de bariwul ndax yonent bi jëmmam seytaane mënu koo jël ku ko gis jëmmam nga gis waaye xijaab bi nga xam ni moo dox ci suñu digganteeg yonent bi ñun ku ci def ñaan pour gis yonent bi xijaab maanaam obstacle bi njëkk a dox sa digganteeg yonent bi mooy insome insomnie insomnie ah diggante nelaw ak ñàkk nelaw mooy insomnie doo tëdd doo toog lii léeg nga ubbi bunt bi génn dellu siwaat tëdd tëdd mënoo nelaw boo xëyee suba li ngay wax mooy biig man daal mënumaa nelaw mënumaa tëdd mënumaa def dara xijaab boobu mu njëkk a dox ci diggante doomu aadama ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag gis yonent bi waaye ba ñu boolee ci tàggkat yi kooku cër ku ko yàlla defal war nga gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax wala xool xam ni tàggkatu yonent bi na sallallahu alayhi wa sallam ndax bindu mag ñi ngeen di wax leer la leer rek mom mo ci nek kon ku ko mëna mokal bokoy wasare nit ñi di ci bëggu di yek ni ñom ñi ngi tebbu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku war nga mel neneen ci wax ak ci jëf man nak yeduma kenn diingatuma kenn sama yeg yeg lay waxe sama yeg yeg rek lay waxe ndax amana nga dem ci mbolo wax ba pare ñu ni waa ki ci walu dafa ñëw pour way kat yi fekk na du loolu nit ku nekk sa yëg-yëg mom ngay waxee na nga bëggee mu gën nonu ngay waxee waye boy wax waxal pour yalla waye bu wax pour doomu aadama ndax nit mom ku ko top ba mu jeex bayyi ko nit jarul dara maam Maodo nee na doomu aadama jeex tak ba pare ko di jappat di jappat ci lo xam day jeex muy aduna amul solo amul solo kon nit bu ko topp ba mu jeex doo ko téye kon nit boo koy téyee wala nga koy déglu yàllaa tax kon yàlla na yàlla defal ñu tawfiq yàlla defal ñu sutura zahiran wa baatinan yàlla defal ñu wér defal ñu xéewal àdduna ak alaxira yàlla sàmmuñu ci làmmin ak ci bët ak ci cat ak ci gàtt fan ak ci deewu mbetteel ak lépp loo xamante ni dafay waral gàcce ci kanamu doomu aadama rawatina gàcce yowmal xiyaam yal na ci yàlla musal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Ablaye ñi ngi lay wax ni bég nañu bu baax a baax kontaan nañ bu baax nii la nit ku nekk fa nga nekk da ngay góorgóorlu ba ñu ràññee la nit dangay am solo suñ la jariñee ba nga tollu fenn fi jéem góor la am ñeneen ñoo jariñ lii ngay def nii man gëm naa ni am naa yaqin ni defaloo ko sa bopp waaye yeneen génération yoo xam ne ñi ngi fii ñoom nga koy defal ndax li ngay def ñi ngi ciy teg bët ñi ciy bàyyi xel ba bu ëllëgee bu ñu jógee bëgg a def lu ñu mel dinañ xam fan la ñuy teg seen tànk te yow yaa leen ko jàngal kon yàlla na yàlla fay la taxawaay bég nañ ci yow di feddaliwaat suñu kóllëre di ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla dëgëral ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama yéene nag moo doon toog waxtaan wala toog ak yéen ba bis bi jeex waaye loolu mënul nekk ñu ngi koy jéggalu bu baax nag ndax yitté yu ñu bayyi ak farata yu bëré bëré bëri kon fofu lañuy ñuy suñu kàddu di santaat bu baaxa baaxa baax Habib nañ jaawantu ñu ñibi tay du bisu wax bisu way la alaykum wa rahmatullah waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf mhm. man naa defal nga ko mhm. waaye itam defaloo ma ko ndax dëgg la ndax yaakaar naa ah gisagum mhm. waaye su ma mën naa ne bokk naa ci njëkk dugal doomu xalifa fii ci dëkk mhm. loolu nag du sama mën-mën waaye moom mbaaxam ndax du lenn lu tax ma wan ko ko lu tax mu war a ñëw lu dul bëtu taalibe bi bu xoolee ak cofeel gi mu am ci man ma am ko ci moom xaj maalim xaj maalim mbóot bis dafa jot mu yónni ma vocal ñuy waxtaan mu ne ma sëriñ bi nee na yow yaa koy daj. dëgg la. waaw parce que nee na boo solee sa garab. waaw may ma may ma foofu. xam nga sañsekat dëgg dafay osé. sañse ku osé wul ku amul fit doo sañse mais mais Ablaye couleur yi muy mélangé sañsekat dëgg la man boo ma ko joxoon du ma ko sol jamono yële passé dañoo tase dëkk bu ñu wax mbir jàmm. mu def trois pièces ni def damina ni tek ci ay chaussures fermées man ma xam ni ndaanaan dëgg la wa ndaanaan deug la mo wax deug yalla loolu la bëggono faté ko par nga fàttali ma ko do seede baaxul <laughs> ah. deug yalla manam mu nek lo xamni lo lu rafet ci ligue diggante sëriñ ak taalibe ah. waaw te lolou manam lolou daf ma gëna son lolou loolu daf maa gën a hmm. ci manam ma nek di jubal lek ci luma man Uh-huh. ndax boo demee ba sa kilifa ki xam ne moom nga yaakaar bëgg man yàlla dafa maa dimbali man. Uh-huh. ku xamoon Ablaye Dimba xam Ablaye tey xam ne Seydou Hadj Malick dimbali na de. dëgg la ndeysaan. dimbali gi dimbali mënuma kaa wax. Uh-huh. kon nag El Hadj Malick dimbali. te gis sëtam gisuma El Hadj Malick sëtam gis. kon kii ma dimbali. El Hadj Malick laa la te bët boobu laa koy xoolee. Mhm. moom man moom laa bëgg nee naa ko man yaay sama buntu ci yoon yi dëgg la man yow laa bëgg. ma la keroog bi ma dajeeg magam Serigne Mansour. Mhm. ca parcelle. ma tagg yonent bi tagg Cheikh Tidiane. mu bëgg loolu woo ba ma ñëw. ma ne ko yàlla dafa dogal ni man Serigne Sidi Ahmed si. Mhm. moom la ma yàlla boole sax. ni ma alhamdulilah rabbil ma ne ko man kooku laa bëgg. li tax nag loolu maanaam moom. moom moo lu ni mel. Mhm. ndax El Hadj Malick ngeen ma ci kàddu gi waaye dafa ñooy dof la ma def. Mhm. waaw ku ci nekk dafa am na war a am ak moom. dëgg la waaye kii dama koy ñaanal yàlla. amiin amiin yaa rabbi mhm. wallahi wa sarratul quran. nit ku baax a ngi nii. dëgg ku bëgg njabooti nii. la. bëggam day métti. Mhm. mais pour sagal njaboot moo tax mu bàyyi lépp lu mu doon. dëgg la yàlla na yàlla fay ko ak yàlla na yàlla fay ko man bi ma dalee man. Mhm. maanaam xaj xam na li wax. këram mhm. laa nekkoon nañ ko waaye anniversaire. mais maanaam kenn xamul li ci bëñ li ci bëñ la kenn xamul. dëgg la maanaam bu la guddi woo ko doo am jàmm. déedéet déedéet kon nag maa ngi baax sëriñ bi. la loola am na xam nañ ci dara. xam na ci xam nañ ko bu baax macha allah xam nañ ko bu dëgg la kon bu ko defee. foofu laa yemale kàddu yi woy. nanu bàyyi sëriñ bi wax kàddu. waaw bu sëriñ bi waxee kàddu. Mhm. ma samay woy. dëgg la te bis bi bisam bu ko neexoon mu ne ma Ablaye. dëgg la ma way ba noppi. bu ñu paree jox sëriñ. Mhm. waaye daf na nañ la jox ba mhm. moom seen ay dara mbàkk. Mhm. moo fi andi mbooloo boobu nga doon. dëgg dëgg la dëgg la gaa yi